mbokk yi ba tey ñu taxaw kenn koo xamante ne kenn du ko présenté ci làmb ndax bari na bokk na ci làmb bi nga xamante ne da ren ak daaw pël moo gën a neex ci làmb arène national moom jabaykee moo ko tëgg mu doxoon ci diggante ki nga xamante ne mooy Franc ak Bébé Saloum mu doon xale boo xamante ne xale bu am jom xale bu bokk ci réew mi la xale boo xamante ne xale bu am gëm-gëm la saa su nekk bu ma émission dinaa ko wax du lu mu taxaw moo tax moo ko waaye xam naa ambition am ci làmb xam naa gëm-gëmam bi nga xamante ne am na ko ci làmb tey ñu ñëw fekk la fii ci li nga xamante ne mooy euh, euh, wéerantey lenge wala joxantey lenge ci dox ci diggante président Alioune Sarr ak Bira Sène tey nga ñëw en tant que promoteur ban yëg-yëg nga ci am ak ban gis-gis nga ci am. waaw ah, avant tout jëli dañu waxoon si bilaay mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim dañu sant yàlla bu baax a baax julli Seydina Mohamed sant suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ Maolana Cheikh Ibrahima Niass dina nuyu kilifa di nuyu kilifa aada yëpp di nuyu sama papa sama turandoor Mamadou Mahdi Ibrahima ak doomam Cheikh Baye Mahdi ak njabootu yëpp. jili di la nuyu di nuyu sa caméraman Bachirou di nuyu personnel wasaare bi yëpp seen liggéey am na solo rafet na ndax ku yokkul yaa wàññi yéen nag wax dëgg yàlla yéen a ngi yokk biñ ñëwee ci làmb ji ba léegi gis nañ jeego yi ngeen teg ak liggéey bu rafet bi ngeen di teg ak liggéey bu am solo bu ngeen teg kon ñu ngi leen di jaajëfal di leen encouragé li nga wax nag dañuy kontaan ci wax ci muy biñ ñëwee fii tey bañ yëg-yëg lañ am tey dañuy wane ne njabootu làmb mën nañoo am ay coow waaye kenn ci sa morom problème te tey man li ma jàngat ci kanam yi amul kenn koo xam ne nii génnee na ci biir génn ak kanam gu ñagas wala kanam goo xam ne dañ si sentir ne kii gisul boppam ci lu ministre bi def waaw ndax mbir nag benn nan bu ko mbooloo boo bokkooy duñ ko omelette dañ koy may ne mayonnaise ku nekk cap te ministre bi loolu la wane ci nomination bii mu def si CNG bi matière bu nekk jël na fa kuréel gu nekk jël na fa ñëpp ñu foo xalaat ne ñi ñu war a mën a yóbbu làmb la wala ñuy liggéey ci làmb jël na ci dugal ci seen seen loolu nag dañ ko ci félicité di encouragé tamit ñi nga xam ne nii ñoo fi jógee di félicité ñi nga xam ne tamit ñoo fi nekk ñu fi teg di leen di wax ne dañ leen a sas te dama ne mbooloo suñu àndee ñu jox leen mbir CNC bi membre yu toll ni mu ngi fi door am cinquante quelques personnes la ñooñu suñu booloontee seen xalaat ak seen euh, xam-xam ak seen doole waxuma la CNC waaye war nañu mën a doxal réew mi ta tey mag Sall gouvernement ministre yëpp boo ko compter ci ay cinquante personnes la ñu toll te ñoo yóbbu réew mi kon ñi ñu jël leen boole leen ñoom ñu cinquante quelques personnes dénk leen làmb ji suñu doxalul làmb rek dañoo bëggul làmb dox waa yaakaar naa cinquante personnes yoo xam ne kenn ku nekk mesure nga am nga xel am nga xalaat bu leen dénkee benn mbir ñu bëgg mbir mi dox mbir mi dina dox fu ñu bëgg a yóbbu mbir mi war nañ ko fa mën a yóbbu li ma leen wax ñu joxante loxo suude wante nekk benn déglu tamit ñi nga xam ne nii ñu ngi ci gannaaw te tànnuñ leen ndax mbir mënoo tànn ñëpp léegi cinquante personnes yooyu ñu tànn kenn ku ci nekk boo amee kenn ki ngay déglu rek cent personnes lañ cent personnes lu ñu bëgg a defar ci àddina defar ko kon ñoom nañuy déglu kenn ku nekk na nga ut conseil ki nga jàpp ne am nga ci moom xalaat bu rafet nga déglu ko mu conseil la nga jëfee ñu ñaanal leen ñu yóbbu affaire bi kawe ñu seen chaque jour nag li ma li may wax rek loolu laay wax bale soo ko boolantee jëli moo gën a sew kenn mënu koo damm waaye soo ko tasee nga damm yëpp kon ñoom nañu booloo nekk benn say yaa ngi dégg nga xam ne kenn du leen mën a tas kenn du leen mën a damm mbir nag bu kilifa tànnee mbir dénk la ko ëppoo ci réew mi xam-xam ëppoo fi xalaat ëppoo fi mbokk mu jox la ko daa am sew yaakaar soo demee ba nga xam ne mbir moo mënoon ñu dénk la mënatoo ko doxal ñëwal ba ci kilifa gi la ko dénkoon nga tegaat ko ci loxoom ah yaa ma joxoon lii de mënatuma am waa ñu dénk la mbir nga nekk ci doxaloo génn beru chaque jour nga woo benn site internet di critiquer di attaquer yow yow moom la ñu war a critiquer mbir moom bu yàqoo yaa ko yàq nit suñ la joxee da ngay def da ngay dindi loo deful dindiwoo bu ñu wootee réunion doo dem ah suñu wootee lu koy jëmale kanam bokkoo ci ëllëg nga taxaw naan mbir mi dafa yàq gisuma sama bopp yow yaa ko njàq yow yow da nga sa askan da nga trahir xeetu làmb te loolu nag bëgguñ koo gis fii ci kenn waaw dañu woote ñëpp ñu ñëw liggéey ndax làmb ji loolu la laaj làmb dafa war a jógee ci level bi dem ci beneen level man loolu laa gëm man dama gëm ne làmb li ci nekk suñ ko exploité du yoon benn promoteur di tëgg làmb naan perte naa chaque jour ma mais mais problème bi numéro un bi tey li nga xamante ne président bi fi nekk Bira Sène war na ko mun a lijjanti ci làmb yow ban nga jàpp ne mooy problème numéro numéro un bi ñu war a njëkk lijjanti ci làmb ndax mbër nag mooy su meeku di bëre waaye promoteurs yi ñooy tëgg làmb nañu woow promoteurs yi nga xam ne ñooy bayeer yi laaj leen waxtaan ak ñoom promoteurs yi jox leen seen xalaat ñu jox seen promoteurs yi seen xalaat làmb tollootul fu ñu koy méttee nañu ñëw nekk ak promoteurs yi ay partenariat adduna sport yamu yu dox noonu la demee ñëw nekk ak promoteurs yi partenariat bul xeeb benn promoteur promoteur bi am na idée événement ñëwal nga laaj ko événement bi noo ko buggee mu ne nii lii mooy sama xalaat lii mooy sama xalaat CNC bi lii la lay gungee sport bu neex a jàppale la sport bu neex a accompagner nit ki la waaw promoteur CNC ak promoteur tey man sama xalaat war nañu mën a duggante ànd di organiser ay événement yaa ngi dégg bu fekkee CNC dafa am lu muy participer promoteur am lu muy sar bu jour ba sax ñu xool kay ci ressources génn nan lañ koy gérer lamb toll toll fuñ koy disalee stade jeu mi mbër promoteur entraîneur loolu lépp war nañ mën a xool xool nu ñuy oyofalee mbir mi frais de organisation yi ñu xoolaat ko d'abord yaa ngi dégg nit oyofal mbir mi ndax mbir mi nag dafa diis jili bu ñu waxantee dëgg su fi équipe bi toogee tamit te oyofaluñ mbir mi tamit nam noonu demee rek lay demee écurie yi ñu fi nekk dañoo bëri jeunes yi amuñu liggéey ñu ci bëri làmb la ñu yaakaar kon mbir moom war nañ ko mën a gën a oyofal fii nag kenn tollul fenn naan may ma ma liggéey waaye kenn ku ci nekk am nga droit tàllal sa loxo sa askan tànnal sa loxo say kilifa pour ñu jàppal la nga liggéey léegi nag loolu mbir mi du lu ñuy disal du arène nationale bi da ngay ñëw tabax ko arène nationale bi nangam ngay fay balaa ngaa tëgg da ngay jël jeu mi balaa ngaa tëgg da ngay fay frais d'organisation da ngay tëgg loolu yëpp tey am na nuñ ko mën a defaree tey arène nationale war nañ ko mën a jox promoteur mu tëgg ba pare door a fay ci réew mi la nekk mm-hmm. mu ngi bi mënul rëcc yaa ngi dégg loolu soo ko defalee nit ki sax am na loo koy wàññi ah da ngay tëgg nañ la jox arène bi boo tëggee ba lëndi comme ni ngay fayal li nga door ñëw fay asat te loolu bokk na ci liy defar làmb liy defar làmb ji mhm. frais d'organisation ñu wàññi ko waaye ku événement am jege si des une semaine nga bëgg ko fayloo stade fay fayloo ko frais d'organisation mu jël gémi jël ay liggéey katam amul sponsor day métti war nañu mën a dem uti tey ay partenaires yoo ay sponsor yoo xam day ñëw jël seen Mm, produit def ko ci stade bi sponsorisé stade bi promoteur buy tëggati làmb stade wàcc la wa ilaa bu la mënul wàcc ñu xool nu ñuy négocier ak yow nga tëgg ba pare doo a fay stade wàññil ñun ñi nga xam ne ni daal jaru ko nañ ko wàññi ndax ci réew mi lañ bokk war nga fay stade fay frais organisation fay GMI def lépp ah événement bi nga xam ne yow leer na la mënul dugal 5000 personnes nga bëgg ko indi ci stade boo xam ne 22000 personnes lay jël. ah ñu bëgg la fayloo loolu noonu yëpp boo ko tëggee jëri boo ko defee dootoo ko defaat dootoo ko defaat nañu xool lu joxal làmb jëmale làmb ji kanam ñu def ko bañ bañ a mettil mbir mi sa prochaine ko euh, euh, journée kañ la parce que àdduna bépp ñu ngi koy xaar comme yow da ngay tëgg dangaa ngare la promoteur la boo xamante ni dangaa ngare la ñu bari ñu ngi laa ba jawekee dañ laa xale la xale la xale la waaye li ne ci bopp bi du bopp du lewul ci bopp gole macha allah yal na yàlla xeb doole mais sa prochaine journée kañ la. waaw sama prochaine journée incha allah rabi ñu ngi jëm ci décembre wala janvier ndax moment bii Covid bi sans dépasse suñu tijjee rek nekk na événement boo xam ne daaw lañ ko tëggoon. diggante France ak leket muy ñaari mbër yoo xam ne tey booy xool comme Modou Lo ak Balla niñ mel Sénégal noonu lañ mel Gambie muy combat boo xam ne bis buñ ci demee ba jógee si dinañ xam ne wax dëgg yàlla lamb Afrique waxuma la lamb bi mu ngi avancé buñ jógee foofu nag war nañ ñëw fi Dakar li leen demoon Gambie lañ bëgg leeral fii diggante kan ak ma njoon xoyantaan wuli liiru jaan sax dañ ko ciy leeralaat loolu yëpp insha allah war nañ ko mën a leeralaat fii si Sénégal ndax combat boo xam ne combat réew ak réew la woon combat bi la woon suñ demee fee yàlla def leerul dañu war ñëw fii leeral li anglais naan home and away dem ak ñëw aller retour dem nañ Gambie bàyyi ma njoon fekke woon ko mu am nu mu demee bii yoon xoyantaan ñëw fii ànd ak waa Gambie ànd ak waa Saloum fekk waa Dakar ñu génn incha allah ñu def arène nationale loo xam ne incha allah adduna beeg askan wi yëpp dinañ ne gong jërëjëf Jami jërëjëf Jili maa ngi lay jaar di jaar Babou Mbaye borom Wassare di nuyu nag Jili sama xarit Ousmane Cissé borom Cissé aussi borom Cissé construction ndax nag daf ma jox directeur marketing am fii si Sénégal mu nekk doomu africain boo xam ne créé société bu mag fële ci Atlanta di fa liggéey liggéey bu am solo di woo nag sénégalais yi nga xam ne ñu ngi Atlanta États-Unis Europe képp koo xam ne nii bëgg nga dëkk dëkkuwaay bu mel ni noonu foofu fi nga ne boo ko bëggee fii Sénégal mu tabaxal la ko comme ba mu mucc ayam loolu incha allah war bi am na liggéey yu bëri yu ñu si war a yaatal ci kàttanu yàlla dinañ ci ànd ak yéen ànd ceeg def ci am solo maa ngi koy ziar yëpp tamit Pape Sarr baax a présidente DKR production Pape Sarr jiite ko ñoom Jimbo ñoom Alain ñoom ñëpp maa ngi leen bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di la nuyu di nuyu sa caméraman di nuyu sama patron Babou Baram Wassare Wassare musique am na lu rëy lu ñu war a def Afrique waaw te ñu ci ciy muy war a nekk diggante Sénégal Gambie Mauritanie ñu ngi xool nag ban réew lañ ko war a defee te am naa yaakaar incha allah comme Gambie nekk ci mooy pays bi gën a yem ndaw nañ jël ñooñu Mauritanie ak Sénégal dem fekk Gambie ñu def fa lu rëy incha allah yàlla na yàlla mottali. maa ngi lay ziar bu wér jërëjëf Jami jërëjëf Djily